donc moom lañ ñëwoon tey déposé ko fii fédération bi pour waxtu ñaxtu ñaari mbir bi ci njëkk mooy wax délégué yi nga xam ne ñooy voté ñooy voté euh, euh, samedi que ne li ñu bëgg def ñun ànduñu si ñu si parce que dañu nekk si dëkk boo xam ne kaddu dafa am dafa war a am dafa war a am valeur kaddu dafa am solo te Augustin Senghor moo taxoon ci kanamu Sénégal yëpp ne troisième mandat bu ko amee dootul laaj quatrième tey jii mi ngi taxawaat di laaj quatre di laaj quatrième donc mi ngi wéddi kàddoom bi nga xam ne moo ko joxe woon beneen bi mooy dañuy gis ne ci processus électoral bi bëri na ay rëq-rëq yoo xam ne méngoowul ak li nga xam ne moom la charte yi euh, fédération bi tëral moom la charte FIFA tëral mu mel ni par exemple dañ ne commission électorale bi nga xam ne moo war a saytu élection yi dañ ko war a tëral lu mu gàtt gàtt gàtt juróom benn weer balaa ñu dem élection te gis na a tax ko carrément moo tax ñu ne ñun suñu rôle en tant que société civile en tant que supporter en tant que acteur mooy ñu ñëw wax sénégalais yi wax fédération bi ak ñi nga xamné ñoo ñoo ngank football bi ne leen li ngeen def ni ànduñu ci té d'accord ñu ci tey d'accord uñu ci ëllëg fuñ ko wara joyé jooyee tam nañ ko fa joyé bu jaré ñu dem FIFA nañ fa dem d'ailleurs saisir nañ ci fa wax ko liñ liñ xalaat ci lolu dañ saisir CAF inshallah aussi pour wax ko li wax ko liñ xalaat ci lolu mais combat bi dina dépasser également élection yi parce que dañ japp né élection le football sénégalais dépasse la cadre élection bu élection yi football bi continuer donc ñun dinañ continuer di faire pour lépp li nga ramener ne war na mën a suñu football kanam sénégalais yi taxaw ci pour moi am ak képp ku mën a toog ci fédération waaw comme nous bon amener na ramener xam ne nous ñun di suñu rôle mooy wax ne kii mooy gagné wala kii du gagné ñun di suñu rôle moi ñu faire ba li nga xam sénégalais yu bëri beaucoup nañ ko ak ñun gëm-gëm comme li nga durant sànq juróom benn Euh, juróom-ñaari junni sénégalais yoo xam ne signé nañ ko en ligne juróom-ñaar ñetti junni ak juróomi téeméer yoo xam ne signé nañ ko suñu kanam jox ñu ko ñu téye loolu yëpp ay pour defe naa ne war nañu ay baatu sénégalais yoo xam ne war nañ ko mën a dégg te comme ñun Sénégal defe naa fédération bi Sénégal liggéeyal bu ay nit ñu toll noonu waxee war nañ mën a dégg li wax moo tax ñu ne indi ko suñu wareef la jébbal leen ko comité bi comme ni nga ko xamee yaatu na waaye dañ japp ne dañ nek ci contexte bo xamne contexte covid la bëgguñu def rassemblement di di di di di, di féwolo ak li nga xamne moy en tout cas charte de mi wala bok li li li, li rew mi la ci jamono jini mo tax ñu jël quelques personnes 4 wala 5 personnes indi leen fini ñu ñew joxe symboliquement li nga xamne moy lettre yoy nonu pour que ñu mëna xamne sénégalais yi en tout cas ñu ci bari ci ñom d'accordu ñu ci li nga xamne mo nek di xew actuellement ci football sénégalais